se ensemble dans la magie des sportifs et de Baba Show l'actualité on continue actualité bi ñu fas yéene waxtaanee li nga xam donc qui dit Edouard Ndiol Koumba Mbidogore Mendy mi daal di jël revanche am dellu ci au top de sa forme wax également ci Henri Saivet mi nga xam jamono ji il est en feu ñu fas yéene ko wasaare ak lu jëm ci coupe d'Europe bi laata boobu nag ki nga xam mooy donc Benjamin Pavard gars yi nag jàpp nañ ne moom daal dellu seen jege na loolu gannaaw bi mu il va bientôt reprendre avec l'équipe de l'Inter de euh, Milan bi nga xamné nak recruté du côté du Bayern Munich bu également qui qu'il kii di annoncé na né jogante contre Atletico de Madrid euh, Ter Stegen du ko ndax il est fort, moom it gañu gaañam ba légui dal di wérul lool dal euh, l'entraîneur Blaugrana donc ancien capitaine aussi du FC Barcelone daal di fësal ki nga xamné aussi il est en forme Openda depuis le championnat bi commencé ba légui ak toute compétition confondue notamment surtout en Bundesliga il a été décisif à 13 reprises en 13 matchs buteur et passeur décisif sur 13 matchs il a été donc décisif à 13 reprises qui hein. nga xam ne nag yaa noo John Lydie Buffon l'un des meilleurs gardiens de sa génération moom gis ngeen ko ak coupe du monde coupe d'Europe plutôt mu daal di Yorni hein. donc jëmoon ci tirage bi nga a ne tey jii da waroon am ñoo xam ku nga coupe d'Europe boo xam ne Allemagne la war a ay match à alléchant war ci am tout trouvaille avec les meilleurs attaquants européens war fa daal di dajeel tàmbale ko ci à week hein. donc aussi ñoom Reynaldo Fernandez euh, ñoom Xabi Simons les meilleurs gardiens ñoom ñëpp war ko fekk mu nekk duel bu nar a neex pendant ce temps groupe A bi poule bi ki nga xam ne nag également mooy donc euh, Allemagne Écosse Hongrie Suisse ñoo fa nekk groupe B Espagne Croatie Italie Allemagne mu nekk nag groupe bi gën a xaw relevé wu par rapport ak ñaar équipe bi ci nekk euh, Slovénie Danemark Serbie playoff également mooy équipe yi war a génn wala Pays-Bas ak France donc nak gars yi kii nag moom di Didier Deschamps li wax leer na nee na fi né match yi tirage difficile yu metti la ah, néna nak ñi nga xamné donc euh, pays ba dal nga am leen tamit day won né nga am coono Autriche également dañu won nak ñom bi nañu match yu metti pendant son ki nga xamné nak également moy Henri Saivet encore buteur aujourd'hui hein. sixième but trois passes décisives depuis le début de la saison pour l'international sénégalais le milieu de terrain l'homme en forme de cette équipe nationale hein. donc actuellement Henri Saivet bokk na ci joueurs yi gën a en forme à un mois gars yi la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. On le sait, il espère pouvoir rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. On l'a vu, il était de la campagne en 2019, malheureusement 2022, il n'y a que temps de jeux à club et tout. Mais il est en forme maintenant, donc allez, c'est de décision. Est-ce que 7 euh, Septième clean sheet pour Edouard Nyolkoumomio Dogore Mendy, le gardien sénégalais, a pris sa revanche, bien entendu, ci donc football bi ndax terrain bi lay euh, fait Mendy temps ñom ñoom seen club am di àll Akhliya bi nga xamné nak gaay ñi ngi enchaîné mom Edouard Mendy également son 7e clean sheet Edouard Mendy aussi di euh, lo détracteur mom mi nga xamné nak euh, ba mu ñëwé ci Premier League ba légui euh, jaar fa do defoon na performance bu am solo notamment saison 2020 2021 mom 4 buts la encaissé ci ki bi nga xamné mu ndaw la alors que pendant ce temps kii di Onana encaissé 14 ci premier tour yi kese gaay li mo nekkoon nag information yi ñu bëggoon jox c'est toujours un plaisir de vous servir Vous leen like bu leen di abonné noonu la tirage au sort coupe d'Europe bi en CV à sa place dans cette équipe nationale Edouard Mendy en forme loolu yëpp dañ leen laaj ngeen joxe seen xalaat su baaxee ci yéen a su bonee suñu la yi jaa ngeen jëf.